tey ñu gis woote làmb euh, ñu gëjoon gis l'an 2000 waaye tey wane nga ni lépp lu làmb nekk yaa ngi ci ba teew euh, teew bi teewaay bi euh, discours bi le président Gris Bordeaux wax Bombardier Balla Gaye lan nga ci jële waaw sant yàlla julli si yonent bi di rafetlu taxawaay bi di rafetlu tamit kàddu yu fi jib di rafetlu tamit teewaayu mbër mbëri fi ñëw parce que nii la war a demee làmb bu soxlaa ñoom ñëpp dañoo war a ñëw parce que ku si nekk ku si gañewul it yaa nga am rakk bu siy gañe wala nga gañe si ba pare am koo si mu gañe si nii la war a demee comprendre nga ñoo ngi rafetlu teewaayu Balla Gaye Gris Bordeaux Bombardier comprendre nga ay ñoom les deux ñoom Alioune Seye ñoom tout le monde ay ñoom kool bu sap mbër yëpp a fi teew boo xoolee lii mooy làmb Sénégal ñii bu ñu bàyyi woon làmb dee na comprendre nga kon nag état bi président bi nañu déglu te wax ministre des sports mu bàyyi amateur yi muy jéem a découragé loo si bëre ministre des sports. nu mu koo ngi def benn vidéo gis nga vidéo bi dégg séeréer la koy mu a jël sa la jël sa jël sa nee na li nga war a lekk nga jël ko paasee ko làmb dugg dugg si làmb ba pare te doo si am dara ba pare boo boo boole si di si xuloo nee na loolu du fula te du fayda moom moo ko wax moo ngi nii. ministre sport moo wax ma Matar Ba bëggul làmb 2012 la làmb gëj a jóg est 2012 ba léegi gis nga benn mbër bu fël 2012 ak léegi ay Balla Gaye 2006 lañ ñëw balaa 2012 ñu nekk roi des arènes ah. 2012 ak léegi ban mbër nga dégg bu siiw bu mel ni Balla Gaye question la amul ba benn ci monde bi amul ñoom ñoo rey làmb surtout Matar Ba bëggul làmb Matar Ba bëggul làmb maa ah, wax loolu man bëggul làmb day rey làmb day découragé loo promoteur yi découragé day affiché day affiché bëgg làmb te bëggul làmb man laa ndoon maa ko wax nañu bàyyi nit ñu bëree mois de mars daaw ba léegi benn làmb amul kuy dundee làmb fu jëm comprendre nga te ñoom chaque mois ñu dem feyeeku seen salaire ñëw toog fi la làmb ji déranger lu ñuy tabaxee stade avant ñoo am stade làmb ji doon dem am nañu stade mënoo dañoo bëri si ñoom la moyen yaa ngi fi Sénégal dafa bëri gën a bëri ay ressources comprendre nga sport bi warut a arrière dafa war a avancer te instant bi làmb dafa arrière kan la ñoom la nañ ñu libéré ñun ñaan ñu lañ dërëm nañ ñu libéré te ñu jox ñu suñu wàll si mille milliards yi ñu jox suñu wàll. jot ngeen jotuñu dara jotuñu dara. garaaw la yéen waaw dañ dañ waaye te te bu ñuy participer kenn duñ ñu ko participer. soo soxlaa doole woo mbëri sooy mitin woo mbëri sooy joxe devier mbëri di jox ay ay ay bongo maa nag ñu nekk te ñun duñ laal mel dañ ñoo xeeb. jërëjëf maa lay jaajëfal message bi am na. jaajëf Lan 2000.